la divertir di la distancer di la éloigner de l'essentiel. non divertir ma daf ma contraindre. de mooy bokkul ànd ak nag loolu yëpp je suis l'homme politique qui tourne le plus du dégg nga fi nemmeeku tur du gis nga ma ci àll bi may wër loolu moo leen tiital ñu ne nañ ko gaaw arrêté ndax ñun bi ñuy door politique dañu ne woon ñii mooy fonctionnaire yooyu rek mënuñu dem fenn ñu bërgal ñu ñu dox dox dox affaire bi commencé meñ ñu ne parti Facebook la yaa ngi fàttaliku yooyu ñu dem dem dem affaire bi commencé gën a tar ñu ne ah ñii suñ leen bàyyee du truc nañu nañu fexe ba dagg bopp bi nañ ko dàq ci fonction publique bu ko defee dina tal utum dépense lu dul nekk fi naan day politique ñu dem dem dem 2019 yàlla may ñu lum ñu may ñu nekk troisième ñu ne affaire bi mi ngi nekk danger donc il faut ñu complot pour pour pour pour liquider ko ñu ne li mu am yëpp tam ci grande ville yi lañ ko am ma commencé dugg ci àll bi dëkk dëkkaan bu ma dugg waa village bi yëpp génn curé dina génn euh, euh, imam dina génn chef de village dina génn waa dëkk bi yëpp génn tertu ñu tertu boo xam ne defe naa mos gisagoo benn leader politique buy def tournée tournée rurale am loolu ñu nekkoon kon nañu génne dossiers yi gaaw pour mun koo téye balaa loolu sax dañ ne nañ ko nañu nañ ko gàllankoor Joal lañ ma commencé di sànni lacrymogène bi ma commencé département de Mbour ba keroog Tivaouane ñu ne kon nañ ko gàllankoor kon ñun dara mënuñoo divertir de l'essentiel parce que man tourné naa tourné wu ma li ma yàlla may ci sénégalais yi xam naa ko dem dem dem dem dem fas feddali kóllëre rek moo ñu tax a jóg mais lii yëpp wax nga dëgg li ñuy organiser nii yëpp lu ñuy tënkee Ousmane Sonko ba du dem dajeeg sénégalais yi te xamuñu Ousmane Sonko su demul ci sénégalais sénégalais ñoo ñëw ci Ousmane Sonko maa ngi ciy sant yàlla bu baax moo tax. suñu programme politique moom Sénégal yi daanaka xam nañ ko li tax ñu topp ñu te amul lenn loo xam ne luñ leen luñ leen mën a naxee la mooy yàgg nañoo dégg suñu discours xam nañ fi ñu bëgg a jëm su dee programme nag lu ñu def ci papier amoon nañu suñu programme 2019 mais le l'équipe bi ciy liggéey daanaka pare na ñu dañ ko réactualiser ak yu demee noonu et on a des échéances yoo xam ne dinañ ko ñëw présenter waat Sénégalais yi jukki bu ne ñu xool secteur bi mu concerne ñu dem présenter leen ko ak yu mel noonu donc ñun ñu ngi ci suñu timing li ñuy def nii yëpp am na côté négatif am na côté positif ndax bañ Ousmane Sonko dem tournée ba tax chaque jour nga créé situation boo xam ne am Ousmane Sonko andil Ousmane Sonko mais loolu moo tax sénégalais gën ñoo xam gën ñoo miin gën ñoo bëgg ma damay toog sama kër Dakar nit jógee fëngale mi def xaw ma ñaata kilomètres ne j'ai fait de kilomètres dama bëgg ñëw rek pour gis la sereel laame jël photo dem te man dew ma foofa kon ñun ñu ngi sant yàlla gis nga dafa am loo xam ne bu ko yàlla defee nit ne tey rek ma dindi ko da ngay sonn moo tax ñu ngi sant yàlla ci lim ñu may ak lim ñuy jàppale boobu ba léegi li desee si euh, temps bëriwul euh, fan yee dañoo dégg journaliste bi di Madiambal Diagne mu ni dafa jëkkoon wax ne sa nekkatoo sa kër génn nga euh, dem ci bois sacré yi après mu ni weer yee passé àndoon nga ak lu toll si treize personnes nga dem seeti Salif Sadio mu nekk chef rebelle loolu naka la demee Ousmane Sonko. xam nga Pierre wax dëgg yàlla niveau bi ma toll nga may laaj ay question yoo xam ne ci yenn nit yi la jóge Euh, je suis désolé mënuma cee sori dafa am loo xam ne Sénégal yi tontul nañ ko seen bopp bu yàgg te bugguma jox importance yenn nit ñi daal waaw am na loo xam ne euh, amul kenn ci Sénégal koo xam ne dina ko dégg jox ko crédit xam nga li am solo li important ci Sénégal aujourd'hui gis nga Macky Sall ñu koy waxal ñëpp amul kenn ku Sénégal yi nawlu loolu moo ci doy waar seetlul rek seetlul amu ci kenn koo xam ne Sénégal yi nawlu nañ ko moo tax ñun soxlaatuñu tontu fi ma toll nii niveau bi ma toll soxlaatu ma tontu yenn yi waaw. sa diggante Barthélémy jaas nag naka la demee jamono ji parce que diggante bu yàqu la wala boog euh, c'est toujours possible ngeen retrouver waat. non lool du fii laa koy waxee xam nga man kenn mësul gis ma toog ba tudd Barthélémy Dias <laughs> seetlu wala euh, su ma ko tuddee c'est en bien. mais kenn mësul toog dégg ma ma ne Barthélemy Diaz lii lu bon wala lu bon waaw te li ma wax rek Barthélemy Diaz Barthélemy Diaz man Ousmane Sonko la xam naa sama bopp xam naa sama niveau xam naa li may gérer donc du fii laay waxee ay diggante ak Barthélemy Diaz wala yu demee noonu de manière général Pierre dama bëgg nga jàpp leen seetlu nga ni nit ñi ñooy wër les plateaux les leaders politiques am Ousmane Sonko andi Ousmane Sonko mais man doo ma dégg ma tudd kenn man benn adversaire laa <laughs> nit ñi ñooy wër suba ba ngoon jot du ma tudd leader waaye yow mun nga xam am Ousmane Sonko d'ailleurs leader yu ba dañ jàpp ni lii may wax ni jagleelu ma ko Barthélemy de damay wax de manière général dama ne nit ñi doo toog jour wala semaine te doo gis benn acteur boo xam ne benn acteur politique boo xam ne dem na ci plateau jàpp nañ ni tey ku bëgg ñu déglu la il faut nga tudd Ousmane Sonko mais doo toog ba dégg Ousmane Sonko tudd un leader politique. si yow la ñu jàpp naa ko. Mm-hmm. da ngay gis sax ku dem naan waay il n'est pas le leader de l'opposition il n'est pas mais man nee naa leen du ma leader opposition. bëgguma xanaa loolu yomb na waaye nag suñu toogee yenn journalistes yi ngeen ne il est le leader de l'opposition France 24 ne leader de l'opposition TV5 mais man sama yoon newu ci gis nga àdduna boo bëggee noppalu. li yàlla may nit nangul ko ko man lii ma doon du sama liggéey yàlla ma ko may yàlla rek moo ko mën a dakkal boo bëggee noppal li yàlla may nit nangul ko ko du wàññi dara ci li nga yor waaye boo bañalee nit li ko yàlla may ci xol bu naqari ngay dëkk te jaru ko man yéenewuma kenn lenn doo toog ba dégg Ousmane Sonko am na ñu ma fi tuumal jiiñoon sax ne dama leen attaqué ci élection yi maa yàq seen ba amuñu député nangam nangam Sénégal loolu la ñu wax te pourtant te pourtant toog nañu lu yàgg façon attaque bu ne di ñëw tontuwuñu nee nañu ñun dañoo complot ak Macky Sall pour que ñu mën a delloo si suñu liste titulaire dañoo def deal tontuwuñu ñu doxaat tuuti ñu ne waaw ñun ñooy wax xale yi pour ñu génn ñu ay suñuy doom néeg néeg ni bu benn xale génn tontuwuñu xam nga yow yaa ngi opposition maa ngi opposition may def sama activité bokk ma ci bokk buggoo ci bokk mais mandul ci samay affaire ñun am nañu ku ku fi woote opposition war nga am loola doy ci naka la ñuy def ba jàkkaarloog pouvoir bi mais opposition yoo xam ne la ngay passé sa temps ci xeex Ousmane Sonko moo ëpp li ngay passé sa temps ci xeex Macky Sall te Ousmane Sonko bi ngay xeex du la tudd du la taas yéegu la te bu la leer ni kii ma topp di dóor di dóor di dóor su wëlbatikoo sax ma xalangu te ngaa bañ a dóor nga attaqué wax wax wax waa ji wax benn yoon nga ne yàq na sama campagne kon kay xam nga ni kii waroo ko woon song moo tax man du tudd kenn opposition bi nit ñee wër rek ku dem ci plateau ñu ne la sonk waaye Sonko ceci non Sonko warul def lii Sonko warul dem fii sonk na jaar fii sonk na lii sonk na ne man du ma leen du ma <laughs> xam nga def na suñu émission ba léegi yow yaa fi tudd may la man duma ko waxee fii. waaw ay question d'actualité parce que parce que damay sant yàlla. te dama am objectif. moo tax bugguma ku ma divertir chaque jour ma wax ko sama njaboot. les coups parallèles bàyyi leen ko foofu dañu concentré wu sur l' essentiel. moo tax képp koo xam ne Sénégal wootewu nga ne opposant nga man dama jàpp ni war nañoo mën a. ak nu ñu am am divergence am na fu ñu war a mun a daje mooy nu ñuy def ba lii fi nekk ñu jële ko fi ba dérive yi arrêté moo tax damay damay bàyyi lu bëri nit mun na maa song attaqué ma wax ma lu kenn xamul mais dès lors que nekk na ci opposition fas si si jàmmarloo man loo loo xam ne sama mbiru bopp la bàyyi naa ko parce que parce que réew mi laa ci jiital moo tax ñu bëri duñu comprendre sax yenn yi plateforme yi fi am yépp dajale opposition bi ma nekkee politique ba léegi ñi fa nekk ñëpp xam nañ lan moo ci sama taxawaay dama ci dem ba jeex pour loolu mun a am après nag nos divergences nos petites divergences nos petites divergences bu dem jotee ku nekk xool nooy demee toj sa bopp janax mais nekk suba ba ngoon jot am Ousmane Sonko Ousmane Sonko lu mu def nga commenté te yow doo def ba Ousmane wax ci waaw xanaa léegi loolu. <laughs> waaw xam nga dafa am sujet d'actualité yoo xam ne tey bu ma may occasion toog ak yow fii il faut ma poser le ko. Hmm. Euh, euh, Barthélémy Diaz nee na dialogue bi ba muy dem di rencontrer président Macky Sall informé na la avant muy dem ba mu génne ci audience ba aussi informé na la est-ce que loolu da nga koy dëggal. dem ne la waxu Barthélémy du ma ko wax fii man dépassé naa foofu. nee na aussi dafa na la loo xam ne tey mérité woon na sax dem euh, cour d'assises maanaam crime la def en fait pour yow. ah bon waaw kon moom lañ ko war a cour xam nga dam ne la waxu Barthélémy du fii laa koy waxee. man dama am leneen lu ma nekk loolu laa tal fi mu toll nii donc munoo tax fexe ba ma nekk fii naan Barthélemy nii xalifa naa euh, euh, karakan. Euh. Idrissa Seck ñëw na ci opposition bi nee na mooy chef de l'opposition. na jël <laughs> chef de l'opposition <laughs> monsieur Idrissa Seck c'est tout <laughs> am ma ci commentaire. alors pour ñu jeexal kañ ngay dellu Dakar. balaa may egg foofu dama bëgg am lu ma leeral tuuti ci Idriss Seck nee naa du ma wax lu bëri ci nit ñi waaye depuis quelque temps dafa nekk ci média di wax ma jàpp ni am na loo xam ne kilifa moomu ko kilifa moomul bis mu ne nga ne dem dem naa seeti diw wax naa ak moom lii lii la ñu lekk lii la ñu jullee lii la ñu tari dem naa seeti diw dina dina dina am fu muy toll koo seeti mu tëjal la buntam man ma lenn ci Sénégal parce que dafa bëri ñu ma ci interpellé a Seck dafa annoncé woon ne day wax su ma juumul le 27 le 27 mars ma toog toog toog sama benn xarit ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp woo ma balaa moom am na keneen ku ma njëkk a woo ñu ne ma ah Idrissa Seck de moo ñu woo ne nee na dafa dafa bëgg a gisee yow. jaan na fu nekk nag mais mënul fexe ba gisee ak may leen sëñ bi man leen bàyyi leen noonu waaw man ma pour giseek moom te xam naa li mu annoncé ni day wax la le 27 la bëgg a ut matière mu fu yóbbu te bëgg ma mu yóbbu fa sama tur kon bàyyi leen noonu waa ji wax ma expliqué ma message yi mu ko bind ak yëpp ma ne ko Assane bàyyi noonu rek moom su déggee li ma wax dina xam ma ne ko Assane bàyyi noonu. bëgguma koo gis j'ai pas besoin de lui parler aw ma soxla ci moom kon jarul muy essayer sax di ma gis mais le 27 ci fajar le 27 ci fajar sama garde corps baa ngi nii mun na ko seede maa ngi teg sama xëdd samay beñe dugub xam nga man damaa bëgg beñe dugub teg sama beñe dugub sama kafe bay commencé xëdd moom mu ñëw fëgg ci bunt bi sama soxna ñëw ne ma ah kii de nee idris Idrissa Seck a ngi ci suuf ma ne ko lan Idrissa Seck mu ne ma ma ne ko lu def heure heure bi ñëpp a ngi seen kër di xëdd ak seen njaboot lu muy def fii heure bi ma ne booy bi mi ngi nii mu ngi nii mun nga ko laaj ma ko demal nga ne ko du ma recevoir damaa convalescent demal mu dem tourné di dem mais bu ma duggaatee sama sama biir néeg li ma tooñ mooy sama xolu jullit ak sama xolu yërmande ma toog ma xalaat ma ne mag mu toll nii bàyyi njabootam ci heure bi bàyyi yitteem yëpp ñëw fii ne damay seet Ousmane Sonko xam naa li ko yëkkati war na koo ñor trop su ma ko bàyyi mu dem ni dina ñaaw ma dogaale xale bi mi ngi woon ci escalier ma woo ko mu ñëw ma ne ko anamu mu ne ma àbb na sijaada ba mi ngi lal ci bunt kër gi di julli ma ne ko dugal leen ko ci biir du leen ko bàyyi ci bunt bi mais ne ko maa ngi julli su ma jullee ba pare dinaa wàcc ñëw seet wax xam lu mu may bi ma jullee ba pare ba def li may def yëpp ma wàcc fekk ko foofu ma ne quoi ah, sëñ bi mbaa jàmm waaye jàmm laa et cetera ma déglu ko mu expliqué expliqué réew mi fu mu toll mun mënuñu ko seetaan nii man maa jël sama responsabilité démb maa ngi ndogoo ci président tey ma xëy ñëw fii parce que lii yow waroon wax lii kii waru moom def warul def lii troisième mandat ceci Abdoulaye Wade cela nangam nangam ma déglu ko ba mu pare ma ko quoi ah, d'accord waaye nag jàmm moom. ñun ñë ñëpp xam nañ ci lan la dépendre ñun ñëpp xam nañ fu kii yee fitna ñun ñëpp xam nañ kiy dóore kiy tëjee ak kiy def li muy def boo delloo ci moom waxtaanal ak moom bu bàyyi yooyu muy def jàmm dina am ci réew mi yi ca des nag waaye bu la invité 4 avril na nga ñëw parce que néeg néeg ni man ne ko déet man dama bokk ci coalition buñ ci tollee dinañu laaj dinañu wax suñu biir waaye man dama xaw tawat nekk convalescence waaye su ma doon def 4 avril sax Ziguinchor bi nga xam ne maay maire ba daaw ma demoon fa 4 avril falaay laay dellu bokkoo ci 4 avril bi noonu noonu mu jóg ma gunge ko mu ngi dem sax maa ne ko waa mbaa jot ngaa xëdd mu ne ma ah fii laa ko yaakaare woon de ma ne ko ah kon waroon nga yëglu ma gunge ko mu dem mais sama xolu yërmande ak sama xolu jullit moo ma tooñ waaw parce que su dul woon li mu ñëw sama kër heure boobu du ma mës a moom naan damay toog waxtaan. daa jàpp di erreur nga li ko recevoir. non du erreur parce que je n'ai rien à mais jàpp naa ni génn foofu wër fu ne nga dem toog fa am Sonko andil Sonko jaru ko saa diir dire ku yoroon sa carrière politique dem ba yàq ko ba tey sénégalais yi xool la bët bi ñu xool nga jekki-jekki bëgg a dekki jàpp ni nekk ci deru sonk moo lay delloo siwaat da ngay nax sa bopp man ñoom ñëpp ñoo ma mag fuuf ba ñuy politique man xalaat maa ngi doon dawal puna kon am na yoo xam ne jaru ko ñëw di xaste di wax lu ñaaw si nit parce que li ko indi yëpp nag xam nga président Macky Sall dafa am ñu bëri ñu ko xelal ne ko sa face à bi ak Sonko yàgg na métti na te baaxul ci yow li ñuy wax bi bipolarisation vie politique bi baaxul ci yow ndax bi ngeen dooree ba léegi booy baa ngi monte yow yaa ngi wàcc léegi nag il faut nga kase ko te bokk na ci ñu ngi koy kase mooy il faut nga introduire d' autres acteurs pour ñu ñëw contrebalancer. ñu joxe sa carte ñu joxe sa carte gi yu bëri ngay gis nii looloo ko andi waaw xam nga bi ñu commencé seen yooyu ba léegi tey la bipolarisation bi gën a tar parce que nee naa lu yàlla def caaxantu ko dindi man le le peu que li ma yàlla may ci politique. yàlla ci boppam mooy toog ba ne rocci naa ko mu jóge fi mais du ay combine du ay naa dugal kii comme ça mu nekk alter ego Sonko wala nangam nangam kon dafa am yoo xam ne jaru ko wër suba ngoon jot am Sonko andil Sonko jaru ko ku ku bëgg nguur demal jàkkaarlook Sénégal yi nga indi sa programme wala su dee kii nekk ci nguur bi tey ni mu ko yoree du yoon nga am xalaat yu wuteek moom demal nga ne sénégalais am naa xalaat yu wuteeg moom te démontré ko waaye nekk ci lii ñu nekk nii amul njëriñ te man yàlla may na ma plus ñu may attaqué plus sama sama sama maqaama di yokk ci sénégalais yi loolu maa ngi ciy sant yàlla bu baax def nañ tout pour détruire ma yow xam nga ni li ñu def ak man mu soo ko gis ci Sénégal te tey bu ñu demoon élection bu ñu demoon élection balaa mi carte yi loolu du sama mérite mbirum yàlla la maa ngi ciy sant yàlla. waaw le temps que may ñëwaat sama dernière question à propos de médiation gis nañu xalif général des Mourides yónnee euh, président de la République euh, Serigne Bass Abdou Khadre nekk le son porte-parole est-ce que yow à votre niveau kilifa diine yi ñu ngi lay saisir dans le sens ñu apaiser situation bi. Euh, loolu mënu ma cee sori mënu ma cee sori sama diggante kilifa diine diggante jàmm la ak salaam. waaye li ma la wax rek man ni may or ni ma fonctionné euh, du ma koo xam ne damay dem ci kilifa diine di leen bëgg a impliqué ci loo xam ne peut-être ñoom bëgguñ cee impliqué waaye j'ai tout toujours manifesté sama disponibilité ak sama ouverture ci kilifa diine yépp nag euh, loolu laa ci mën a wax euh, mënuma cee sori lu bëri parce que xam nga mbirum kilifa diine dafa sensible. gërëm aussi Sénégal yëpp mais di gërëm aussi ñi fi teew ñi nga xam ne. bàyyi nañ seen yi ca jóge fu sori leader politique yi defe naa ñi ci mënoon ñëw ñëpp ñëw nañu